nuyu journaliste yi ci seen teewaay nuyu it euh, suñu sunu mbokk yi nga xamante ni c'est des ñu ngi bàyyi ko ci néeg yi nga xamante ni mu ngi tudd may bokk ci kër di tudd Afrique nuyu aussi suñuy frère yi nga xamante ni ñu ngi ci ay mouvement citoyen fii ci à travers mon frère Guy Marius Sagna di leen jaajëfal ci pragmatisme bi ñu organisé ndax maa ngi wax sànq ci français ni bu amee lakk-lakk ci kër balaa quartier bi di ñëw dëkkandoo yi ñëw njëkk a ñëw ci mbiri premier secours loolu moo waral situation bi am Mali ñu jàpp ni tey tey jii nii war nañu amal ndaje bii pour apporter suñu soutien au peuple Guy Marius Sagna wax na ko tout à l'heure amul benn organisation yi nga xamante ni nee nañu dañuy soutenir coup d'état militaire amul parce que ànduñ coup d'état militaire waaye surtout ànduñu ñu ci coup d'état yi nga xamante ni moo gën a gàllankoor Afrique actuellement mooy coup d'état constitutionnel ndax da nga daan gis sax coup d'état militaire moo am ci Afrique ñëpp ndax terreur léegi dañu commencé gis en Afrique ay coup d'état militaire di ñëw di déboulonné coup d'état constitutionnel peuple yi jóg di accompagner ñi def coup d'état ko gis ngeen ko fii ci euh, Guinée donc soutenir ñu coup d'état deuxième chose mooy suñu appel gii ñuy def tey appel la de soutien au peuple malien ci circonstance yi ci ci li xew bi nga xamante ne dafa jékki-jékki rek ci gaaw ci gaaw tuuf bañ a ibbi sax ay waxtaan ne dañuy tëj ay frontières euh, pays de la CEDEAO yi ak Mali dem ak dikk bi du am waaye it mu ay sanctions yi nga xamante ni dañuy geler ay koppalu Mali ak yeneen ak yeneen sanctions yi nga xamante ni nee nañu ni. Euh, régime militaire bi fa nekk ñoom la ñoom la ñuy tëkku ñoom la ñuy ñoom la ñuy gàllankoor waaye mesures yi ñëpp xam nañ ni peuple Mali lay gën a sonal économiquement du point de vue sécuritaire waaye mesures yi peuple yu mel ni peuple sénégalais ndax tey gis ngeen transporteur sénégalais ñu ngi wax ni ils sont bloqués difficulté yu am dem ak bi am ci jënd ak jaay entre Mali ak Sénégal à travers suñu port mais beneen bi gën a garaaw mooy tey gis nañu problème terrorisme bi am ci zone boobu tey bu ñu étouffé Mali d'une certaine manière ba terrorisme bu gën a am doole duñ ci mujj ñun ñi nga xamante ni ñooy Sénégal Burkina du ci mujj keneen ak keneen ak keneen bi ci moo taxoon nag ñu jàpp ni CEDEAO dafa war a dellu si ci décision embargo bi ci li mu gën a gaaw parce que décision bi ñun ñii di nga xamante ni ñun ñooy les peuples d'Afrique ñun ñooy askanu Afrique ànduñu parce que surtout que jàpp nañ ni waxtaan war na mën a am du moment où assise refondation yi am Mali actuellement yi nga xamante ni euh, euh, régime bi ci loolu la sukkandiku pour après def proposition ou transition yi sur les cinq ans même ci biir Mali am na ñi nga xamante ni jàpp nañu ni ànduñ ci il faut que waxtaan am ci seen biir pour que ñu mën a dem ci ay délais yu raisonnable ci transition donc jàpp nañ ci CEDEAO première chose bu dee rek jàmm moo leen tax a jóg dañu war a jibbi ay waxtaan pour que ñu mën a am ay accord waaye bañ a jël décision wu gaaw yi nga xamante ni dina indi jéeye Mali indi jéeye Sénégal indi jéeye fépp ci Afrique ma bëggoon leen wax ni ci loolu ni ñun teg nañu jéego bii teg waaye tey bu ci vingt heures jotee dina am appel bu yaatu bi nga xamante ni ay organisation yu mel ni Y'en a marre Sénégal FRAPP Sénégal ak yeneen Sénégal ay yeneen mouvement yu mel ni Balai Citoyen au Burkina Lucha ak Filimbi au Congo nga dem Wake Up Madagascar nga dem Sindi Moudia nga dem euh, jeune effort au Cameroun ak yeneen mouvement ak ay organisation de défense des droits de l'homme ay organisation de société civile africaine ay personnalité yu mel ni Tiken Jah Fakoly ñoom Didier Awadi ñoom Claude Siard ay intellectuels yu toll ci cent jëm kaw dinañu lancer appel lu ñu duppee appel des peuples pour le Mali appel des peuples boobu nag liñ ci tënk mooy dañuy engager CEDEAO pour que li mu gën a mesure embargo bii ñu levé ko première chose deuxième chose mooy ñu tijji ay waxtaan pour arriver à un consensus ci mbirum durée wu transition bi bu Mali du moment où même maliens yi ci seen biir jàpp nañu ni war na mën a war na mën a am ay waxtaan pour dégloo ci loolu mooy deuxième chose troisième ni nag ñu ngi soutenir yu am en Afrique partant du 14 wala le 22 fépp ci Afrique ay rassemblement ay manifestation yi nga xamante ni peuple d'Afrique yi dañ koy amal pour soutenir le peuple malien ñu ngi koy soutenir fortement Sénégal nag contexte campagne électorale bi ñu nekk tax na fii ba élection yi c'est-à-dire le 23 du ñu mën a ab ñu mën a amal manifestation bi ñu bëgg ak dayo bi ñu ko bëgg jox comme bi ñu amaloon ak suñu frère Guinée waaye li ñuy annoncé leneen mooy appel bu fort bi nga xamante ni kuréel yi yëpp ca Afrique ak diaspora dinañ ko fësal tey ci vingt heures trente dina jox ultimatum à la CEDEAO pour que ñu lever embargo bi parce que bu ñu ko lever wu yi ñu bëgg tëj entre ñun ak Mali ñun peuple yi ànduñ ci bu foo dem ci Afrique nanguwuñu ko bu ñu levewul sanction embargo yi ci li mu gën a gaaw ci fan yi di ñëw di ngeen gis ay citoyens africains braver cet embargo là mu doon à travers yoon yi wala mu doon de par les airs tey Air Sénégal suspendre na ay volam jëm Bamako waaye ku jógee Mauritanie di nga yegg Bamako di nga yegg Bamako ku Bamako te yoon bi mu ngi donc bu ñu levewul sanction yooyu citoyens africains yi dinañ jóge fépp ci Afrique ak diaspora pour dem répondre à l'invitation du peuple malien à travers ay organisation de la société civile yi fa nekk ay mouvement citoyen yi fa nekk ñu amal fa manifestation bu am solo li nga xamante ni peuples africains yi ñooy nekk ko pour dire à la CEDEAO que lii ñu ñu bëgg teg nanguñu ko daf ñuy gaañ il faut que CEDEAO très vite mu lever ces sanctions là sans délai